aussi nii ay magi jëmm lañu est-ce que la Ousmane Sonko def keneen def na ko ba mu lëmbee réew mi ba indi toltof ak coono ak fitna ci réew mi keneen def na ko da ngeen a bëgg kon Ousmane Sonko def lu indi lu ñuy weng indi fitna ba ay doom Sénégal ñàkk ci seen bakkan ñàkk fa seen alal réew mi xaw a tas ñu bañ koo tudd parce que Ousmane Sonko dafa def ay élection personne dit ça ah ben lolou ngay wax kay parce que li ngay wax ni lolou lay nuru mom waxuma lolou waxuma waxuma lolou kon bu re nangou nga ni kon bu re nangou nga wala tout mais mënon nga aussi wax yenen point yu positif ci Ousmane Sonko mais livre ba nak yow fi mu jaar par exemple Ousmane Sonko bu taxaw ne mom la ndik gis un inspecteur bu taxaw ne kenn du mun a wane benn dërëm en hmm. quinze ans yu ma sàcc si inspecteur si en tant que inspecteur. waaw mais non bindoo loolu. waaw mais non doucement ah doucement doucement. dégg nañ ay homme d'affaires wax fi ne Ousmane Sonko ñëw na suñu voilà seere si moom ay seere yu baax. pour ne pas dama wax benn affaire. te yooyu yëpp de retrace non non doucement. oui est-ce que man damay bind ci Adji Sarr. Hmm. ak Ousmane Sonko. Hmm. di dem di wax leneen lu hors sujet. no bu dee journaliste nga rek non doucement xam nga loolu benn problème la. kon dama am sujet bu may wax. D'accord. Est-ce que damaa war a hors sujet ba pour pour wut lu neex kenn wala pour jéem équilibre non du ma def loolu man li ma lii sama focus yow boo doon def examen ñu laaj la Ousmane Sonko Adji Sarr ngay wax ay jubéeg Ousmane Sonko ci ay impôts kon def nga hors sujet do admis c'est ça la vérité li ñuy wax hors sujet ci copie examen moy loolu kon loolu nga may xirtal ben maintenant nak buñu ñu ci sujet boobu. waaw sujet boobu parce que. buñu ñu ñu dellu si ci kon li nga wax ni. amna ay jaar-jaar néna na musta sàcc.

indi naa ci loolu kon xam naa ci Ousmane Sonko ay tooxi doon ak ay jubati musu ko weddi xam nga yaa ngi Sénégal maa ngi Sénégal boo tappee tey Google article yi may wax di ko gis musu ko weddi